waa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bisimilahi rahmaani rahimi onsu billahi mina seytaani rajimi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziara mm-hmm. te di leen baalu àq di leen baalu mm-hmm. ñaan sunu kàddu yal na leen fekk ci jàmm di ziare këri diine yëpp di ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi te wér noonu lañ koy ñaane booleem tarix yëpp di leen ñaanal saa borom yàlla na la may fan gudd may leen wér. amiin si barke Cheikhouna Cheikh Ahmadou Bamba. réew mi yàlla na fi saa def jàmm. kon sëñ Moussa bisimilah. macha allah euh, macha allah sëriñ Mor Ndiaye mu sëriñ Fallou kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax dañuy ñëw rek euh, jàll si waxtaan bi. xam naa rek euh, première question li ñuy war a waxtaanee rek mooy li nga xamante ne mooy buntu sëriñ te bu ñu nee sëriñ dañ naan seet te bu ñu nee seet euh, suñu xel day dem si nga xamante ne mooy euh, Serigne Mor Ndiaye nga xamante ne seet moom defe naa ni euh, yaa ko taax si réew mi parce que képp koo mës a seetal dala naan daf may gis ba ma yaakaar ni daam ko koy wax samay mbir sëñ bi luy secret bi ak seet. waa sëñ Moussa. Mhm. xam nga seet. Mhm. ab sëriñ sax waru koo ndamoo. Mhm. ndax daa bokk ci lu ndaw. ci wàllu ñaan. ñi nga man sëñ Moussa. seet. loolee laa ciy def. dëgg la. seet lu ne lu ne loo xalaat laa ci def. Mhm. dama lay wax ba wax la ni nga ñëwee ci àdduna. Mhm. wax la sa wërsëg wax la sa lépp. Mhm. moo xam ramul la moo xam danga koy riyaada. moo xam lu mu mën a doon daal. mais seet moom duma ci morom ku yàlla bind. loolu moom damaa bëgg ñu bàyyi ci xel bu baax a baax seet moom loolu loolu moom moo gën a ndaw ci li may liggéey. muy wàllum seet. loolu moo gën a ndaw ci li may liggéey. loolu moom na ko ñëpp bàyyi xel seet moom moo gën a ndaw ci li may def sëñ Moussa. Mm-hmm. mbirum seet moom macha allah euh, yaa ngi koy def bu baax a baax a baax. Mm-hmm. sëñ bi euh, la dernière fois dañ fay ñëwoon nag nga génneel ñu euh, ndomba ju doy waar ndomba ah. xaalis mm-hmm. mais defe naa ni am nga lu gën a yéeme ndomba xaalis boobu muy sa kalpe bi calpe magique bi may dégg sëñ bi. waaw xam say leeral. waaw xam nga ndomb boobu. man dama ko doon dama ko doon liggéey. ndomb boobu dama ko doon liggéey mooy ndomba xaalis gi. kooku soo ko takkee fukki fan ak juróom. si kattanu yàlla ak mbaaxam. boo am xëy am fukk da ngay xëy am ñaar fukk ndaw ma googu noonu mais calpe bi hmm. maanaam loolu dama koo dencoon ne dama ko génne hmm. mais comme jëf yi dafa bari cool yi bari hmm. ma ne naa ko génne gis nga calpe masique bi laa ilaaha illallaah bii bene bene laa ko jëlee bene dama ko tër biu liggéey ko gis nga kii chaque un million moo ciy nekk kii buñ ko buñ jëlee sa tur ak sa sant jël sa tabihan sa biddiw moom la ñu lëkkale ak junne ji Mm-hmm. gis nga calpe bi nii lay mel. calpe jour chaque jour laa la wax boo boo xee teppee am. ki fekk mm-hmm. ci un million. bu nekk si biir. dafa am xaatim nii lañ koy liggéeyee damay bañ. ngeen gis calpe jàppane jàppane mm-hmm. calpe bu leen neex la gis nga calpe bii maanaam nag amul nii wala naa lii xam-xam bu ñuul la dëgg la kii su ma la ko liggéey da ngay am alal force milliardaire ngay doon kenn mënu ci dara muy calpe bii ma yor nii calpe basique bii ko liggéeyee lee xool ko bu baax a baax a baax uh-huh. bëri nañu koy liggéey nag mais uh-huh. roy manam manam roy bokku tuk pire. hmm ki man ko jele bene. Mhm. yaa ngi deg mhm. mais bokku ton sax ci li wara war wara li li wane. dëgg la moy calpe massif bi ki mhm. suma ma la ko joxee ba pare wax la sarax yi. wax la ni mi mel ak lepp mo nek ni sun bi calpe bi. hmm ki fi ngoy tek boko boo ko fa tegee. ci kattanu yalla ak bu mbaaxam. saa yoo xëyee di nga ci fekk 1 million. Hmm. kii ay risque ngay jël ñoo man ko jël. xana xam-xam bu ñuul la seen deug la ma ki xolul ay niek ak ay lara ki da ngay am alal force ki suma lako liggey da nga am alal ki moy kalpe masik maa ko jele bene mhm. ñi koy ñi ma koy liggey ñep xam nañ ko manam mhm. damay jël sa sa bidiw mhm. ya ngi deg wax ju baax mom lañu lekkale lëkkaleeg junne ji yaa ngi deg genné sarax wax la ni mi and ak lepp nga def ko dafa am ay cangaay ci kat nu yalla la la gënal ni ki moy joni joni ki sa yo xëyee fekk ci 1 million moy ki moy kalpe masik sa yo xëyee 1 million nga ci fekk allahu akbar dama bëgg mu leer bu baaxa baaxa baaxa baax deug la ki liggéeyam du yagg 15 jours lay am liggéey bi pare. ak foo man a nekk ci réew mi ak biti réew. Mm-hmm. ci kattanu yàlla ku la joxut bu mel nii man liggéeyuma ko na leer. sëñ bi calpe bi day dem fépp bitim day dem fépp kii foo ko teg day dox. kii junne lañ koy boole junne ji de bu ñu sartoon teg moom ba pare. Mm-hmm. chaque jour mën na la indil 1 million mooy li gën a ndaw. mooy calpe bi calpe bii waaw. Mm-hmm. kii foowuma ci réewuma ci caaxaanuma ci xam-xam bu ñuul la. doxul ci lu leer kii la dëgg la. kii da ngay am alal ci force. mooy maanaam nag ñi nga xam ne ñoom laa koy jox ñu di ko ñu di ko am mhm. nañ ci bàyyi xel bu baax maanaam nag maanaam nag du du loo xam ne day day jël sa njaboot wala day rey sa doom wala dara mhm. mais lii ci rawaan lay dox mhm. yaa ngi dégg mais suñ ko liggéey ba mu commencé ba ba activé wu chaque jour boo yeewoo demal nga ubbi fa nga ko teg da ci fekk million yoo xam ne junni la koy jox la ilaha illallah mooy calfe bi xaalis demaat non du dem parce que dañ koy liggéey ba pare sa tabax ci lay dox sa biddiw moom la ñuy boole ak rawaan bi. boole ko moom ak junni ji. mais du ma tudd bi fii. su ma ko boolee ak moom ba pare. wax la secret yi ngay def. Hmm. dañ koy wird fukki fan ak juróom. ci kattanu yàlla fan ko teg boo yeewoo saa yoo ñëwee di fekk un million. maa la ko wax muy calpe bii. la ilaha illallah. kalpe bi kalpe bi ñëpp mën nañ ko am ñëpp mën nañ ko am ci réew mi ak biti réew ak fu la neex dañ koy liggéey am la ko yónnee la ko jox la caggat yi muy àndal wax la sarax yi ak yi war a àndal yëpp nga def ko ci kàttanu yàlla boo nekkoon ci am réew réew ma dëgër ngay xëy mënoo am nit ñi yaakaar la mënoo lijjanti ko jëlal kalpe bii laa ilaaha illa bul xëy bul gont jëlal lii rek def ko ni ma la ko waxee ci kàttanu yàlla da ngay am alal force lii moom. maanaam xam-xam bu ñuul la damaa bëgg mu leer. Mhm. ñi tëju te amuñu dara nañ jël lii. macha allah am na solo ah am na solo bu baax a baax a baax Serigne Mor Ndiaye mu Serigne falu euh, dañuy jàllale nag suñu beneen question rek dañuy ñëw nag euh, si wàllum papier la ñuy ñëw. sëñ bi euh, Modou Modou yi yaa ngi nekk bitim réew yenn saa yi nag ñu yàgg fa loolu mën nañ fa am alal sax mais ñibbi si da leen di të bu ñu mën a ñëw. waa xam nga am réew. Hmm. boo fay dem. Hmm. da ngay jël dëkk ba adat ko. Hmm. jël sa tur ko. quartier ba nga jëm da koy adat yaa ngi dégg wax ji bu baax su boobaa nag léegi ñu xool ko xam ban biddiw la jàpp mm-hmm. ñu mën laa génneloo xam jox la ay càngat mm-hmm. su boobaa ci kàttanu yàlla dëkk boo mën a nekk sa wërsëg dana fa am xanaa xamoo ne man gàllaaj ji may liggéey dëgg pour nga mën a ubbi ko ci dëkk ba mm-hmm. turu président bi da ciy bokk soo tur da ciy bokk turu dëkk ba da ciy bokk turu quartier ba da bokk mais lu ne dama koy adat tey bu dee France damay jël président ba adat yaa ngi dégg jël turu dëkk ba adat ko jël sa turu adat ko yaa ngi dégg boole ko xam lu mu jàpp ban lim la rawaan boobu laay wëri ba gis ko jàpp ko nit wax la sarax ba nga def ko ma jox la mbir yi nga sangoo ko ci kattanu yàlla réew mooma ñëpp danañ xam te nag fa ubbee ko te loo fa wut danga biir réew mooma ñu nekk moo xam réew moom naa doon nag moo xam Sénégal gii ba noon Sénégal gii hmm. tey ba Basiiru ngay jël turam adat ko hmm. parce que mooy bu nekk ci bopp bi hmm. soo paree nga jël sa tur yow adat ko jël turu dëkk bi Sénégal adat ko mhm. jël sa sant adat ko boole ko nag xam man biddiw la jàpp mhm. buñ la liggéeyee lim bi dañuy xam rawaan bi ak sarax bi mhm. buñ la ko joxee jox la càngat gi ci kattanu yàlla lii diirub Sénégal territoire Sénégal bi doo fi ñàkk addunaa lay xam addunaa lay si wala loo fi bëgg day sotti te da ngay saf ñëpp neex ñëpp uh-huh. liggéey ak lépp dara du jafe waaye ñu bëri bëri ñu nga naan ubbeeku dañ koy wut mais xamuñu secret ubbeeku ubbeeku pour nga xam ko dangay dëkk ba nga nekk nit ki mënoo ko ubbi mhm. ba pare xamoo rawaanu dëkk ba mhm. xamoo tabixa dëkk ba mhm. xamoo biddiwu dëkk ba yaa ngi dégg bëgg na dama koy ubbi loolu dafa mën a nekk loolu sa mënul ndax nekk mënul nekk c'est impossible mënul nekk man nag pour ma liggéey la ubbeeku boo demaa tey Amérique laa nekk damay jël Amérique ma adat ko ma xam lim ban la ma jox ma jël sa tur adat ko ma xam ban lim la ma jox ma jël ba nga ne kañ ba nga nekk ma adat ko xam lu ma jox ma boole loola liggéey ko xam ba biddiw la jàpp ma wax la sarax ya jox la cangaay ci kattanu yàlla biir Amérique yaa fay lu la neex nga fay def lu la neex nga fay doxee te da am alal ñibbi si mën a teral say mbokk mais da gis ku nekk ci dëkk def fa dix ans quinze ans mais day am am ñoo xam dañ fay def quinze ans mënuñoo am nga jàpp ne nag yàlla bindul kurut am mhm. dama bëgg ñu bàyyi si xel nit ñi nañ jóg ci seen bopp te defaru mhm. nit daa war di ubbeeku mhm. am kaaraange mhm. mais nit ubbeekoo amoo kaaraange amoo bayre bëgg foo toll nan dafa dëgër day dëgër ñun ñii nga xam ne da ngeen ñoo yaakaar dañuy jóg di sangu ji parce que li tax du di nga parfum yii sëñ tey dama lay wax loo xam ne fi nga koy fi nga koy gëj a dégg tey laa ilaaha illallaah ah waaw maa la ko wax gis nga gis nga parfum yi damaa bëgg nga jël ko bu baax mu xool yi benn la wala gis nga parfum yi set yu bokkul la parfum yi juróom-ñaari parfum yu bokkul la. Mm-hmm. kii su ma la ko joxee. Mm-hmm. da koy boolee karaw goo xamul borom. karaw goo xamul borom. xool li muy àndal gi nii wax joo gis ne tungoom seere. allahu li muy àndal mi ngi nii. Mm-hmm. xool leen bu baax ñi jàng nañ xool. ñi xamul nañ xool. man lu leer laay liggéey fii. man alxuraan lu leer laa ciy liggéey. yaa ngi dégg. lu leer laa ci liggéey léegi nag parfum yi juróom-ñaar lay doon. yoo xamante ni duñ bokk. nga boole ko xaatim bi ma la jox. Mhm. boole ko karaw goo xam ne xamoo borom. Mhm. soo paree nga def ci loxob xorom fanaan def ci ñaar fukk. Mhm. soo xëyee suba teel nga jël ñaar fukk nga saraxe ko nga sangoo ko juróom-ñaari fan. su këy defoon këy di bu defoon dix ans. barke Cheikh Ahmadou Bamba ñu woo la jox la ko. su defoon vingt ans ñu woo ko jox la ko te du ma ci laaj dërëm. parfois nag yaa koy jënd. Mhm. parfum yi. yaa koy jënd yaa koy jënd waaye ñaan gi maa koy liggéey sama loxo bopp. maa koy bind ba mu yegg ma jox la ko nga sangoo ko juróom-ñaari parfum yu bokkul lay àndal. Mhm. ak karaw goo xamut boroom. Mhm. ak bu xorom ak ñaar fukki dërëm. soo xëyee da ngay saraxe ñaar fukki. sangoo ko juróom-ñaari fan. foo mën a nekk ñu waroon la say kayit a ngi nii ak foo ak du kayit tar-tar. ak buy demande visa Sénégal boo dee visa. jëlal lii vite fait ñu jox la visa bi. amul ma dem te ñëw yi li ñuy wax nii ay. lépp a si. la nan bàyyi caaxaan yi te dem gisu ci xam-xam. Mhm. man damaa sonn ci retour yi may jot. Mhm. dëgg man ku ma jot li ngay njëkk a mooy Serigne lekk na sama xaalis. dëgg la Serigne jël na sama xaalis. Mhm. nañ dimbali moodu moodu yi. lan moo tax defuñu nanguñu koo def ñu ne ci ñu ne ci réew mi parce que fii koo ko fi def mu fekk na sa kër tooxal la. dëgg la nanu fàttaliku nañ fàttaliku ne dee day am. te bis dina ñëw ñu dugal la ci pax yaa ngi dégg suul la te su boobaa loo masal jël ci loo moomu da nga ko génne nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mhm. nanu ragal yàlla ci li ñuy liggéey lii ñuy liggéey du ay caaxaan mhm. ñi nekk ci biir nag dina lotoo ne ay sëriñ lañ tuñu ay mhm. sëriñ dinañ leen dénoncé ñoom ñëpp benn par benn wala man samay responsabilité lay jël parce que day am ñu may woo hmm. nekk ñii hmm. hmm. ma su ma ko woowee du ma ko jot mais sëñ bi bu la ñu joxoon dix millions yàlla mooy nangu ñaan defal yàlla du delloo genn ñaan yàlla moo ne ñaan leen ma ma may leen ngeen sant ma dolli leen mais ab sëriñ boo xam day lekk riba di mooy yàlla ah kooku nan la mën a yaan yàlla di ko nangu nan waxante dëgg kul aqwala mu doon nekk mhm. nit ki da ngay yàlla mhm. jox saa li mu moom mhm. nit boo koy ñaanal tey ba yëkkati ñaan jox dafa am sarax yoo xam ne yow yaa war a génneel sa bopp mu gunge ñaan nga du bokk ak sarax ya moom nga ko laaj su ko defee nga sonn ci ay mbiram soo paree nga jàppal ko kurus ci turu yàlla liggéeyal ko li nga ko war a liggéeyal mais ñu jox la sa xaalis nga delloo say jong tëdd am na solo am na solo bu baax a baax a baax Serigne Mor Ndiaye mu Serigne Fallou ñu daal di jàll suñu beneen question rek waxtaanee tuuti mbirum bayre sëñ bi bayre nag bëri na façon. bayre boobu nag damaa bëgg ñu def ci ndànk. bayre nit bayre bi. damaa bëgg ñu tey ci. ku bëgg siiw. man maa koy liggéey. képp ku leen jox bayre. ne leen xaal bi la. xamul sekkere ba. mooy bayre bi toj réew mi jamono ji. barke Cheikh Ahmadou Bamba. salon boo gis muy dox. restaurant boo gis muy dox. bitig boo gis muy dox. nit ñi di ko rang. Mm-hmm. cooli bari Boucher Ketchup dama nga laaj ko. Mm-hmm. Boucher Ketchup mii. Mm-hmm. dama nga laaj ko restaurant ba. wala nga laaj Fadam 2 sama xarit la dama nga laaj ko keroog bi ma fa yóbbu ma liggéey fa xaal bi. maanaam lu mu togg mu jeex. man moom woo ne ma sëñ Mor ma ne ko Mbàkke mu ne ma damay taal trois mbana mu jeex. allahu akbar secret boobu nag man maa ko fiy liggéey beneen sëriñ bu la ko jox. lekk na sax xaalis. ñàkk nga. mooy secret mooy secret xaal bi xoolal léegi ne damaa sonn ci. Mhm. ni nga koy laajee damaa bëgg nit ñi bàyyi xel. ma wan leen ni secret bi demee. Mhm. ak su ma la ko joxee nan nga koy defee. bisimilah nga xam ne ku ko mën a joxit doo ma ko laajati. Mhm. kon bisimilah moo la. xool affaire affaire bi. nga nii ma ko liggéeyee nii. gis la ilaha lii mooy bayre place. kii mooy bayre bi may liggéey nga xam ne moo. waaw léegi nag xaal bi nii lay deme su ma ko daggee nii ba pare nii lay demee nii pour ñi ma koy laaj mooy ñi xam ñu ne ci réew mi ak ñi nekk biti réew nii lay mel léegi soo ko daggee nii pare da ngay jël téere téere baa ngi nii léegi nga dugal ci biir dugal naa ko léegi da ngay jëlaat lii nga këppaat ko ci nii léegi boo këppee pare léegi lii du këpp du juutu nii déedéet ñii lay def day téer ni lay bu téenee nii léegi nag boo ko suulee ba pare bu fekkee mënoo koo sol nga wut potum dagg nga def ko ci boo pare nga rax ci kaw léegi lii ngay jël nga teg ko soo ko tegee nga raax ci kaw soo paree nga jox ma sa tur ma wirdu ko ci kattanu yàlla xaal bi moo mun tax ñaata doomu ci ñoo ne ci biir munoo wax ñaata nit lay gane si gis nga moom laa liggéey place buuse moom laa liggéey place maam Ndiaye Safon na ñu ma ko liggéeyal mhm. muy bayre xaal bii ma yor mhm. yaa ngi di dégg wax ji bu mhm. waaye dafa nekk ñaari bayre pour ñu bàyyi si xel bu baax a baax. Mhm. dafa nekk ñaari bayre. ban ak ban la waaw mu bu dee bu dee bu dee bayre bii la ci place bi rek lay dox. bu dee bayre bii lay dox mhm. yaa ngi dégg. Mhm. mais nag dafa am loo xam ne yow sa jëmm da ngay wut kaaraange wut bayre. kaaraange ak ñu defal la bayre boo xam ne. yow sa bopp da ngay ubbeeku. mais bu dee place bi am na bayre am na kaaraange. dëgg la mais gis nga xaal bi soo ko defee ci place bi. billaahi la si laa ilaaha illa huwa su place bi doxul. ma bàyyi ñaan wala ma dagg sama groupe sànni. kii bayre bii. dëgg la amul luñ ci sikki sàkka. dëgg la ñi ma koy liggéey laa déggum la salon boo gis ñu koy rang. Mhm. place boo gis ñu koy rang. Mhm. demal nga vérifier da nga fa fekk sama da fa fekk sama xaal bi. amul ma dem te ñëw. dëgg la kon nag ñi nga xam ne ñoo koy piraat. Mhm. nan ko bàyyi. dëgg la. pirate bi bari na tamit. yaa ngi dégg sëriñ bu bëgg secret bi ñëwul fi ram suku àgg suuf. Mhm. wax ak man ñaan ma ci ñek rek ma jox la secret bi amul problème. deug la mais dem di créer say xaal say affaire man na ñak li man mako fi liggéey. Mhm. ki so maama ko dal liggéey bayil mako ma diko liggéey muy Famara Mané. deug la mo sëñ fallu ay wëllëre lañu wër mhm. kon secret bi du secret xalé deug la yeen ni koy def na ngeen ci bayyi xel. mu man mako liggéey. ku dut man liggéeyoko deug la muy secret xaal bi deug la na lèr bayra xaar bi moom ah. defe naa ne réew mi jamono ji ñëpp ko xam macha allah sëñ bi dafa mel ne secret jaay nga mhm. nekk hmm? mhm. la neexee nga wékk ko sa place fu mu mën a mhm. doon kii ku ñëw ci yow bu nee salaamaaleykum bu nee jaay ma faaw mu jënd hmm? barke Cheikh Ahmadou Bamba ba da koy jënd sànni ko wala mu jënd ko mayee ko da koy jënd allahu akbar kii moo tudd romb jënd ku may woo nag. Mhm. boo bëggee mu leer sama bopp nee ma gàllaaju romb jënd laa bëgg. Mhm. kii boo rombee da ngay jënd sa buntu place daal lay bañ ko fa jaar moom. Mhm. muy gàllaaj gi nit nag ba lay wax dara ba xam ba xam ngi dox wala doxut dëgg la dëgg la lu dégg nga wax na man ku ma xool xam ne maa ngi sant sëñ Tuubaa dëgg la loolu am na dégg nga wax baax a baax kon doxuma ci loo xam ne lu leerul la ñii ñëw si ñun di ñu ñaan loo dañ ñoo yaakaar rek dañoo yaakaar rek moo tax ñu ñëw ci dañu ñaan loo mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. waaye amaana sax xam nañ dara mm-hmm. léegi nag nit bu la bu la yaakaaree ñëw ci yow di sonn ci yow da ngay góorgóorlu ci jëmm was waslu ak sa digganteek moom daal di seetaat tamit sa digganteeg saa borom seetaat sa digganteeg tamit yàlla ndax aduna digënté bi ngay juddo ak bi ngay faato da yag daa gàtt dëgg la mu nit mu tudd téeméer nat mm. nit mu tudd juroom ñaar fi kat bu ag mm. kon digënté bob bo fi defee lo xamut da ngay sonal sa bopp nañ ragal yalla ñun sëriñ mm-hmm, mais modou moodu yi nan nañ mm-hmm. yëri modou moodu yi ngir yalla ak yoonte bi suñ tuba mm-hmm, modou moodu yi luñ dajalé xolal tey yalla si taw ñu top taw bi ah dem di wër ay réac ay monogram ñew dajale ko xamu xamoo fuñ jaar ba am ko ñew jox la ko sëñ bi nga nga dem tëdd bu la woyé du jot bi ci dem nga boole ko ko. nga yaakaar loolu personnalité la. loolu du fulla du personnalité. Mhm. sëriñ bu koy def na ko bàyyi. Mhm. ku ko ci bàyyiwut barke sëriñ Tuubaa boo dee sawar a nga jëm. amul ma dem te ñëw. Mhm. nañ bàyyi caaxaan yi loolu baaxut. dëgg la am na solo. Euh, def naa ne moom euh, Serigne Mor Ndiaye euh, ñëpp lay jàppale muy Modou Mor yeeg surtout commerçant yi parce que Bayre jaay ak Bayre place yi nga. xam ne dama ciy yi. dëgg la parce que Gambien yi. dañ ma dañ may dañ yi dañ a baax a a Mhm. ci réew mi biti réew ñëpp mhm. fu ne am naa fa ay gambiyee mhm. ndaysaan ñoom dañ may jël di ma boole ak ñeneen ak ñeneen ne nu neex ci yow mooy buñ la wooyee appel normal jot la ku la vocal nga tontu ko te ku soxla ñëw sa kër ñëw sa kër am solo te yi am na appel whatsapp rek lay dox loolu ak jubadi fa la tàmbalee gis nga man su may ñëw di ñaanlu ma la ndax numéro baa nga dox appel nga ne ma déedéet sama xaalis doo ko lekk ci caaxaan nga ne kon gars yi dëgg nañ bàyyi xel loolu pa ñoom nañ fexee ubbi seen xel mi te jéem a yeewu macha allah am na solo euh, am na solo bu baax a baax a baax Serigne Mor Ndiaye dañuy jàll jàll nag euh, suñu beneen question rek waxtaanee tuuti euh, mbirum maanaam ki nga xamante ne mënul am doom sëñ bi ñëwul ma si doom. waaw xam nga doom. Mhm. wax naa ko ci émission ba jàll nee ne yàlla sàkkul ku am doom. Mhm. dafa am nit ñoo xam dañuy taxaw. Mhm. dañuy kale lu yàgg. mais su boobaa fas gi ngay jël. fas gi ma la jox nii. dama bëgg nga xool ku baax. fas bi si lépp lay def. dama ne boo toogoon dix ans amoo doom. dama ne ku leen jox geneen gu bokkul ak gii. man sëñ Mor Ndiaye mu sëñ Fallou joxuma la ko. gii da nga koy xocc ndox trente minutes. soo ko toxee ndox trente minutes. da ngay jël ndox mi naan. diw sam naq takk lii sa ndigg. ànd ak sa borom kër. billahi lasi laa ilaha illa huwa foo jaar jël ëmb. allahu akbar ak lu mu taxaw taxaw taxawal fukki at. taxawal vingt ans vingt ans la ki jox naa ku am trente ans am doom. la ilaha illa allah dem nañ benn dem minute xaw ma la mënut am doom mi ma ko joxee la am doom nan bàyyi caaxaan yi xam-xam lu am la lu wér la nan nan nan ragal yàlla tey liggéey lu wér ku amul xam-xam nga dem gëstu jikko ba am lu leer doo ko ñëw wax nit ñi te bàyyi tappaleeg caaxaan yi yaa ngi dégg mm-hmm. ñu nekk suñu biir nag rax ñu daa bari te duñ ay sëriñ mm-hmm. il faut ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax xam-xam dañ koy jàng dañ koy gëstu ba mu leer nga ñëw teg ko ci taabal ji mm. man loolu laa xam lii ku ko jox ci kàttanu yàllaa ko mbaaxam mm-hmm. da nga am doom insha allahu rabbi parce que yaa ngi nii ku la jox nag modèle beneen bu dul bii mm-hmm. man Mor Ndiaye mu sëñ Fallou liggéeyu ma damaa bëgg mu leer macha allah incha allah euh, sëñ bi euh, euh, li xamante ne nag moom fi gën a indi nag mm-hmm. mooy gàllaaju fokket bi fokket bi sëñ bi ah. fokket moo nekk ni mm. kii ci wew nag laa koy liggéey wew kii wëreel sëriñ sëpp. doo mhm. dégg la jox lii. maanaam lii lu muy def. kii kii mooy gàllaaju foqet. Mhm. kii sa place mooy takk ci kaw. Mhm. yaa ngi dégg. danañ dem ba jàpp ne da ngaa fitis. Hmm? barke Cheikh Ahmadou Bamba. wutal sa place wala boo amee oto. takk ko ci boo amee parking oto yi fi ñuy jaayee oto. takkal yaa ngi dégg nii daal lay def moom. weewu mooy féete suuf lii weewu nag laa ko liggéey waaye da ci biir nit du ko xam. dëgg la fii nee la bagage yi mag a fi nekk. dëgg la. jëmm ji nag mën naa mën naa saayire ci xale di mm-hmm. mais fii bagage yi mag a fi nekk xam-xam dañ koy jàng ba mu leer mm-hmm. nga doog a ñëw indi ko ci taabal ji mm-hmm. kii ci weewu nag laa koy liggéey kii mooy gàllaaj foqat kii boo xasee am ci adduna mën ngaa noppalu muy gàllaaj gii li muy def kii li muy def bari na kii danga may wooru ñu déggante ma wax la li muy def lépp mais bu ma ko bëggee yaatal ci émission fii fi la ñuy fanaan dëgg la mooy foqet bii dëgg la suñ ko bëggee yaatal man fi laay fanaan incha allahu rabbi foqet bi am na solo waaw sëñ bi kanaar bi kanaar bi kanaar yaa ngi nii waaw waxal waxal sénégalais kànnaar gi lu muy def. maanaam kii. Mhm. maanaam. Euh, mhm. bu la nit abelee xaalis. wala nga soxla ci nit xaalis. Mhm. war nga am ci nit ci am yitte. bu la leeree ne yorut nag. yorut. bu ko tëj. tuddal turam ñetti yoon. da koy ubbi. tudd turam ñetti tëj ko. bàyyi ci caabi ji bu ko laal de. barke Serigne Bamba 30 minutes. bu la wowut. Mhm. jox la li ngay laaj nga laaj ko mu jox la ko. Mhm. bu la ko joxut ma dagg sama kur sànni ko. xam ne li may ñaan baaxut. kii mooy ko bu fekkee da nga am jigéen yooyu topp. Mhm. ay at mënoo koo jot. di ko labat ay at mënoo koo jot. tëj ko. tudd turam ñetti yoon li ko ci tëj ko dem sànni ko géej nga doo gisati. ba addunay tukki ni mënut a tas sëy booba. da ngeen sëy force da ngeen sëy. kii moo gën a gaaw nopp. kii mooy kànnaar. gànnaar kan gi kii su ma kii su kii koy liggéey dama bëgg nañu bàyyi ci xel bu baax hmm. gànnaar buñ la jox te melul nii hmm. bii kenn awu ko kii lu ñuy liggéey la mocc ko hmm. nandal ko kii su ma la ko joxee nga tudd turam ñetti yoon tëj ko caabi ji doo ko tijji boo ko day toj léegi bu fekkee jigéen ju dëgër bopp la jox da nga koo noob ba wala nga topp ko feneen mu bañ jëlal bi nga tëj ko tudd turam ñetti yoon yow nga sa tur yoon nga ci bi dawal ba géej nga sànni ko ci ga dalay woonaal sama xel ci yow la nekkoon la nga ko proposé woon boo ko waxaatee mu ne la waaw. allahu akbar te su la xasee waaw see. ah waaw. sëy ba ni mënatu ko dindi de. ah waaw bu koy laaj alal la. bu yorut bopp du jóg ci metti. allahu akbar kon da ngeen ci xel ko di don? bu ngeen koy laaj na yor. Hmm. bu yorut bu leen ko ci bi. Hmm. muy bi ma yor. allah am solo am solo am solo bu baax a baax Serigne Mor Ndiaye. xam rek dañuy jàll nag euh, suñu beneen question rek ne yu ah euh, dañuy am problème mu néew kàttan sëñ bi euh, lan mooy problème boobu noonu ba jamono ji mën naa ne góor yu bëri muy xale di mag am problème mu néew kàttan. waaw. Hmm. loolu dafa bari. problème dafa bari. li koy waral nag mooy. Hmm. Euh, rab ciy bokk. bi nag. waaw moom dañuy mballu rab. Hmm. dafa am ñoo xam rabal koy def am ñoo xam dañuy am jabar ba pare. tëdd seen jabar. jóg dem ci bi daal di mballu. loolu rab koy def. pommade bii laa lay jox. xool ko bu baax ku dul man amoo ko. bii su ma la ko joxee fekk sa awra dafa tuuti. Mhm. jël ko nga diw ko ci 15 jours. Mhm. yaa ngi dégg yokk mhm. awra nag amut maa bëgg mu leer. yokk amul. amut yee sidit man yokkuma awra. lii ma la jox day tàllal sidit yi. nit bu awraam tuutee. sidit bi moo dellu. soit dafay am wala mu amee ballonnement. wala ndoxu siti loolu mooy tuutal awra bi. ma jox nag soo ko ci forootee. sidit bi day bàyyi mu génnaat. mais yokk awra amul. comprendre nga léegi nag lii soo ko ci dee diw day dëgër. Mhm. ba pare day gudd maam day génnaat. ba mhm. pare dafay am kattan. Mhm. muy lii. dana gudd dana dijj te dana am kattan. macha allah pommade bi su ma la ko joxee. yaa ngi nga def ko ci. incha allahu rabbi li ma la dara du ko mais yokk awra amul yàlla mun a bind ba pare. nit ñi dama koy yokk amul. loolu génn leen seen xel ko yéen ñu ngi koy wax. amul loolu du dëkk. mais sidit nag day dellu. Mm-hmm. la koy waral nag mooy hémorroïde mm-hmm. bu dee hémorroïde am nañ ko dañ koy xool mm-hmm. fekkee ne awra bi dafa dellu ñu faj la ñu traité la hémorroïde bi ba pare jox la pommade bi nga diwoo soo ko diwee ah, incha rabbi bi day génnaat ba pare dafay dëgër da ngay yeex a daanu a daanu am na solo sëñ bi waaw muy garab bii pommade bi ma yor nii incha allahu rabbi xool ko bu baax mi ngi nii ci kàttanu yàlla ku ma ko jox. Hmm. incha allah rabbi da nga am jàmm. bu sa néeg naqaree. Hmm. sa waaw kii moom boo ko da nga sant bu baax a baax a baax a baax. macha allah hmm. eh, macha allah Serigne Mor Ndiaye mu sëñ Fallou. kaddu gi am na solo bu baax a baax a baax. daanaka nag waxtaan bi jeex na xam naa lu duus nag bi xajul si cin bi. dañ lay daal di bàyyi nag nga tàggoog ko ñu la doon seetaan. waaw maa ngi ñaan ci réew mi jàmm. di ñaanal ñi nga xam ne ñoom la yàlla sa borom donc réew mi saa borom may leen kàttan ko mën a yore te ñu muñal te xam ne réew mi incha allah rabbi réew mi neex lay doon waaye dama bëgg tamit réew mi ñëpp ñu laa laabal xol yi te waajal bis bi muy màggalu Touba te xam ne bis boobu bis la boo xam ne jullit yëpp ko war a waaj ndax seexul Khadim ndax man damay wax ne Serigne Touba kenn amul fayam ci lépp nag kenn amul fayam kon dañ koy doole ñaanal saa borom yokk ay leeram te taasuñ ci barkeem di sant Serigne Cheikh Thioro Mbacké bu baax di sunu xarit di sunu wëllëre Euh, bërki démb rek màggalu Mbàkke Bari gi ndeysaan ñoo fa bokkoon nekk ñu gis Pastef bi ak na mu def Mbàkke Bari defar ko defar bu am solo boo xam ne boo fa ñëwee di nga xam ne lii wax dëgg yàlla am na changement ku fa ñëwoon déwén ñëw fa ren di nga xam ne fii am na changement loolu nag du du du kattanam du man-manam waaye ndimbalu Serigne Touba la kon Serigne Cheikh Thioro ñoo ngi koy ñaanal bu baax yoon yu mu jël yoon bu baax la na ci continuer te xam ne rek incha allah rabbi dana baax ndax ay waajuram gërëm nañ ko ay mbokki boppam it gërëm nañ ko ndax dañu ndimbal boo koy def na la sa na tàmbalee say mbokk waaw bu loolu jàllee rond-point bii nga xam ne moo nekk gàddaay nan ko bàyyi xel ay junne dañ fee dëkk rompo point gàddaay bi ay junne dañ fee dëkk yaa ngi dégg soog yi fi bareeg yooyu yëpp def bu ñu fi defoon junniy lamp du te ay soog am fi nan wut nag wu ñuul ñaari nag ñu def ko juróom-ñaar fukki saam yaa ngi dégg wax ji bu baax ak ñaari legati soow ñu sarax ko ci digg rond bi tojal ko rawaan bi mën a tuxu suñ ko defut ci kàttanu yàlla ba tukki soogi du fi jóg waaye nag buñ jógee ci loolu lépp ah, damay laabiri Sidi Diop benn secret rek laa koy laabiri gis naa ko mu yor benn oto oto bi nag euh, rafet na macha allah yàlla na ko jig waaye na dem ci ku ko doy mu jël marque li ma koy wax nii nag xam-xam la boo xam ne su ma ko waxee euh, sëriñ si nag buñ ko peraat nan ma dimbali ci loolu rek na jël euh, kii bi marqué oto bi numéro oto bi na dem jox sëriñ boo xam ne doy na ko mu adatal ko marke numéro oto bi su ko adatee pare na ko wax li mu numéro bi lu jàpp jàpp ban biddu la jàpp mu génneel ko sarax booba ci kàttanu yàlla boo ko defee dana mucc te dana am jàmm insha allahu rabbi maa ngi ñaan ci réew ñëpp yàlla fi saa borom def jàmm ci barki Seexul Xadiim ngeen jëf